bokki amna ñu mbekté ak contam mag ànd ak yéen seen émission Kouthia Show di sant yàlla di wax alhamdoulillah rabbil alamin julit ci yonent bi sayidina mohammed pe sal sur lui sous l'égide et la bénédiction de tous les khalifes généraux jabatu Cheikh Omar Foutiyou tal gi yep ñu ngi leen di ñaanal kendo doon jàmm sëñ Mountakha Bassirou Mbacké khalif général kulu mourid yalla yàlla guddal fanam diko ñaanal jàmm tamit charno Bachir tal khalif Omar yani yalla yàlla ko def ko jàmm mom ak doon di Cheikh Omar ziar nañ bu baax ki nga xamne moy Serigne Babacar Mansour Sy khalif général de Tidiane yalla yàlla guddal fanam diko ñaanal tamit yàlla defal ko jàmm may ko wér mu yàlla yag ci wér bi kuda amin yàlla nga bok ci ñi wér sëriñ Mouhamadou Makhtar Laye xalif général kulu laay yal na yàlla gudd fanam may ko fan bu gudd ak wér sëriñ Pape Mahi Niass xalif général bu Medina Baye ziar nañ ko sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass sala wana Niass ñu ngi koy ziar di ñaanal tamit suñu baay ji di Thierno Hamdou Ceerno Abdourahmane Bari borom bogol ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wer gu Sama Sama Rabi ca Fouta imam Fassou Bodian xalif général de la communauté Diola yal yàlla gudd fanam Ceerno di ziar tamit sama papa sama xarit sama sëriñ sëriñ Abo Mbacke xalifa sëriñ Fallou Mbacke yàlla ko yàlla defal jàmm di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne suñu papa suñu xarit suñu sëriñ di nga xam ne nag moom xalif général des Baye Fall yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram cardinal Théodore Adrien Sarr Monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean ak mboolem chrétien boo xam ne yaa ngi am yaakaar ci yonent na leen defal jàmm may leen fan bu gudd ak wér-gu-yaram di ziar moom tamit yàlla na ko yàlla defal jàmm ca kër ga Serigne Assane Seck fu ci raba ñu ngi koy ñaanal kenn du jàmm fan bu gudd ak wér gu yaram di ziyaara tamit sëriñ Cheikh Salim Mbacke xalifa sëriñ Salim Mbacke yàlla na yàlla gudd fanam njabootu Cerno Bokar Alpha Ba nekkoon waale yu kaamin ci war a fonde yàlla na xippee ci àjjana gën a kawe waaye di ñaanal suñu baay ji nga xam ne moo ko wutu di alaaji Ibrahima Ba xalif général bu war a fonde yàlla na yàlla gudd fanam Cerno Mamadou Adama Gaye nekk ca ñànk idi alaaji Mamadou Gaye nekk ca Bour Tefes sëriñ Habib Gaye Mouhadama sëriñ Mansour si ziar nañ ko Cerno Hamdou Rabi Ndiak nekkoon waale yu kaamin yàlla na yàlla def mu xippee ci àjjana gën a kawe ziar nañ tamit alaaji Ousmane Ndiaye waale yu kaamin ci HLM alaaji Seydou Eh, Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ca Passy moom tamit ñu ngi koy ñaanal kenn du jàmm fan bu gudd ak wér yaram sëriñ Mama Sugu waa daan yàlla yàlla fanam njabootu sëriñ Abdou Karim Mbacke yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér yaram ci Ndindi Modou Fleur tamit ca kër ga yàlla ko yàlla defal jàmm eh, di ziara tamit bu baax maître Fatima Fall responsable politique nekk marraine Kouthia Show yàlla ko yàlla defal jàmm sëriñ Mansour Sarr chef religieux eh, gàmmoom ca Buri Saaxo foofu nag di ci ziar tamit suñu yaay Adja Kine si bi nga xamne mom lañ ko dénk Adja Kine si nag doom la ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum nekkon fi xalif général ku Tidiane yalla yàlla def mu xippee ci àjjana ya gëna kawe dom di Serigne Moustapha si responsable moram mom tamit ñu ngi koy ñaanal kendo jam fan bu guddu ak wir gëram Serigne Babacar Abdoul Aziz si ca Tiyawan yal ko yàlla defal jàmm taf Tafsi saxo Iliman tamit ñu ngi koy ñaanal kendo jam ñu ngi koy ñaanal tamit yàlla defal ko jam ci fa nga xamne nak nañ ko yéene moy mu xippee ko ci àjjana ya gëna kawe Alaaji ali Maska nekk ci Banjul imam moom la tamit ñu ngi koy ziare euh, alaaji haala mbaay bëgg mbaxal ca Serekunda Serigne Gora Sey serviteur de l'islam imam Kaaso Gassama tamit yàlla yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram góor gi Ablaye Ñang moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla xippiloo ko ci àjjana gën a kawe jànkatu xasaare woon bu mag yàlla ko yàlla defal jàmm Serigne Baara Cissé nekk ca jaxaaw añ ba ak reer ba ak ataaya bi dañ koy mujj bàyyi xam naa nag moom ci boppam nag ñu kon ñu ngi koy ziare alaaji Basiru Touré nekk njabootam nekk alaaji njabootu alaaji Basiru Touré ca Daara Rilwan alaaji Habibu Touré ca montagne ba yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu yaram ñu ngi koy ñaanal tamit njabootu Serigne Xayri Touré bi yëpp ak Serigne Mansour Ndiaye Baye Fallou Serigne Fallou Touré loxo yaram sedd euh, tamit euh, jàmm ak yaram bu sedd ak xéewal ñëpp jàmm ci foofu ak képp koo xam ne nag yaa ngi ca diggante Medina Salaam ak euh, foofu nga xam ne nag moom mooy ca Saalum ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm may leen fan bu gudd bu ànd ak wér yaram ziare tamit bu baax baax baax Thierno Alassane Mbaye taalibe Thierno Aliou Thiam ak Thierno Aliou Thiam waaliyu kaam ba ca Rosso gi ko yàlla defal jàmm njabootu alaaji Matar Dramé nekk ca Dramé xale bi si na bu Touba Sanoxo ñu ngi di ko ñaanal kenn du waaye tamit njabootu alaaji Cheikh Baba Diongo fii sa alaaji Baba Diongo mu xadama si jamono Sidi Hajj Malick Sy radiyallahu taala nekk ca quartier Mbodiène ziar nañ njaboot gi yëpp sëñ Ahmadou Seck xala ah, di xalifu alaaji sa Seck nekk ci Khourdan département bu Koungheul ñu ngi koy ziar di ziar tamit imam Mansour Seck professeur arabe suñu xarit la borom ñaari soxna yàlla ko yàlla defal jàmm Cheikh Baye Seyni bu Fall xalif bu Koosi ñu ngi koy ñaana moom tamit yàlla defal ko jàmm fan bu gudd ak yur gëram di ziar tamit suñu xarit di Cheikh Ibrahima Cissé muxaddam la moom tamit ci ah, yoon bi yàlla ko yàlla defal jàmm di ñuy tamit si njabootu Serigne Bakary Niang ñetti xalif maam Cheikh Amadou Bamba Niang ñu ngi leen di ziare njabootu Alaaji Mouhamadou Aysata foofu ci Guet Ardo njabootu Cheikh Tahel Boula Ndiaye ci Loubu du Kër Momar Sarr di ziare tamit Serigne Mouhamadou euh, Moustapha Sow Waliou Kamil xalifu maam Abdoulaye Sow ci Dagana Serigne Djili Samb marabu chef religieux yal na ko yàlla defal jàmm Nourou Ba nekk ca Paata Galaw tamit yàlla yàlla fanam alaaji Baba Lamine Niass moo di représenté famille Baye Niass fii ci Dakar ci Parcelles Assainies moom alaaji Baba Lamine Niass yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan nekk ci Dingara xalifa euh, yàlla ko yàlla defal jàmm euh, di nuyu tamit suñu xarit suñu soppe Serigne Cheikh Mamour Insa Diop marabout de la jeunesse yàlla yàlla gudd fanam taalibe Baye boobu yàlla ko yàlla may fan bu gudd a gurguram njabootu alaaji Mbàkke Tandiar rabbil taala ñu ngi leen di ak Serigne Abdoul euh, Chérif Abdoul Moutalib Tidiane Serigne Cheikh Amin Tidiane yàlla yàlla gudd a fanam Serigne Haris Cissé Touré Euh, nekk ca Fass Touré moom tamit suñu papa la ñu koy ñaanal jàmm ak wér di ñu tamit njabootu Serigne Mouhamadou Kabir Sarr nekk ca gin ginnaaw ak ki nga xam ne mooy Alhaji Cheikh Ahmed Tidiane Sarr di xalif général ba yàlla ko yàlla defal jàmm imam Lamine Sarr nag moo nekkoon suñu imam foofu ci HLM dafa dudd àdduna yàlla xippee ci àddina gën a kawe waaye bu ñu gëstoo yem ci doomam bii di docteur Mbacke Sarr yar gi am ci moom diine gi am ci moom fulla ak fayda ak kersa bi am ci moom ak jàng bi am ci moom yàlla ko jàmm may ko fan bu gën a góor gu yaram docteur la ci Zaire docteur la ci baatin yaa na ko yàlla defal jàmm sama xarit bii nga xam ne mooy docteur Mbacke Sarr ci HLM Serigne Abdoulaye Ndiaye xalil xalif de son père Alaaji Jim Ndiaye ca Kaymor ziar nañ ko Abdou Aziz Diaw mu ngi ca kër ga moom tamit ñu ngi koy ziar di ziar tamit Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Dakar ba ñoom tamit yaa na ko yàlla may fan bu gën a góor gu yaram ak Serigne Badara Diop xalifu Serigne Cheikh Diop Kooba ak raqaji Serigne Abdou Khadre Diop ñoom tamit ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal kendaru jàmm mbokk yi démb wax dëgg yàlla kontaan naa ndax histoire bi ñu fi doon traité imam bi imaam Ndiaye woo na ma démb nee na kontaan na imaam Ndiaye nee na kontaan na ci prestation bi ñu def nee na daa ree ree ba fàtte coow la fee nag ci Sicap Karack nag euh, euh, euh, niñ ñu traité actualité bi fii ñoom ni ko consommé daal mooy jàmm koñ ba daal jàmm amaan na fa imaam Ndiaye bi nga xam ne mooy jeune imaam bi nee na daal wax dëgg yàlla Kouthia da nga defaraat lu bëri ba pare danga leeral ba pare danga ko teg ci ma kon nag bu kilifa yi kontaanee ci li ñuy def rek wax dëgg yàlla ñun sag la ci ñun moom tamit imam Ndiaye boobu nga xam ne euh, doomu gën gi neew la ñu ngi koy ñaanal di conseiller des affaires religieuses foofu ci Sicap euh, ca mairie bu euh, mairie bu Barthélémy Diaz yàlla ko yàlla defal jàmm parce que mënoon na def beneen concept bu ko neexoon mu ne li ngeen may li ngeen def nii neexuma te daa yor njaboot mais nee na njaboot ga dañoo ree ree ree bay bëgg a dee <laughs> wallaay wallaay wallaay loolu rek ci jublu allah ji yat ma dee suñu bàyyi ji yal na yàlla gudd fanam ah danaa ko seeti nag waaw dinaa ko seeti waaw bés bu ñu amee bër bër mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy noppaliku bés bu ñu amee bër rek dañ fa dem seeti ko yàlla ko yàlla defal jàmm taalibe sëñ Babacar si moo ko jox wér direct amul ma jàdd directement yàlla ko yàlla may fan bu gudd borom borom njàmbu faal nga nii yàlla yàlla may góor gi fan bu gudd waaye yàlla yàlla gudd fanam mbokk yi alaaji Malick moo nekk ca réalisation ba alaaji Mansour Guèye moo nekk ca son bi di bu mag bi yaay jaame de nee na la bésu jàmbur kon bés bu ñëwee sa bés nang ko bësal ba mu doon ya Yaya jame ci dëkk ba mu nekk ma ngay yónnee <laughs> manam lañ ko defoon ca gambi wa sadawo ko jagar jagaré ko néna mom moom kenn du ko togn ren te déwén ko gis <laughs> Yaya ya jame néna kenn du ko togn ren te dewen do ko gis néna dëkk ndoom bo nga xamné mo moo nak gambi ci peggu Sénégal ah, gambi amna lu ko ñor nañ dem seeti Yaya Jammeh <laughs> maa ngi doon dega benn waaykat bu eh, Youssou Ndour la so because Youssou Ndour la am na ku wax foofu ci biir way bi tia tia mari e jegenjiri e ñapari e way am na ku wax boobu ala seka ala seka yàlla yàlla yaram boobu hey hey damari e démba ci guddi so because dama nekk Gambie yàlla dogal élection am ñoom yeew ñooñu waa CEDEAO yambar yooyu ñu def seen délégation so because waaw yaa dangay dem parce que lii deful nii élection bi jaarul yoon soo lii lii lii soo lii Gambie dafa nar a taka boo demul dafay taka ñun CEDEAO woo jàppal bàyyi bàyyil jàppa jàppal bàyyi bulu jàppa bàyyi na yéeg na wàcca waa ji dëkk ak man dëkkandoo bi président dëkk boobu nga xam ne seen dëkk bi foofu kooku ñëw waaw waaw dañoo wax nga dëkkar boppa ah di nga ñëw di nga génna dafay wax dafay yéeg ak pexe ba ma génna ñu yaakaar ne su demee soo because dañu nekkaa ci jàmma eh <laughs> duñu nekkaa ci jàmma de duñu ci jàmma de walaay duñu nekkaa ci jàmma parce que dama nekkoon Gambie so because waa Gambie bugguma ma bugga Gambie ñu bëggante non ni ko danga dinga dem ba benn jamono nga xam ne xëy na lii la yàlla dogal waaye so nga ñu bàyyi la nga wax sa daka waaye ñoom dañuy bàyyi seen daka yi di lijanti daga jaambur te li ama seen daga yi moo gën a yees li am ci daga jaambur léegi nag affaire CEDEAO CEDEAO dañuy nekk di dañu jaxaso so ñi nga xam ne dañu dugaloon seen loxo ci nguuru Yaya Jammeh tey ñu ngi nekk ci jafe-jafe ñu ngi nekk ci jafe-jafe de nga man dañu wax ne waaw Yaya da nga yaga fii da fi yaga <laughs> waxoon lu ne boo ko ñemee pour bàyyi ko yombul. yow la ñu bëgg a gàddi man kay soo ma bëggoon doo leen ma génn yéen kay soo ma bëggoon doo leen ma génn man dama waw ma damay wax wawu gaaruwaale xam nga man li ma wax nii wawu la dama ne am na daga boo am ne boo génnee daga dem ci daga boobu boobu noonu. am na sëriñ bu mag waaliw dagana foofu man du ma tudd turu daga de waaye boo gënee Gàmbi nga am na daga booy duga nii sa ndeyjoor waxuma man waxuma Gine waxuma Gine Bisaawo de waxuma Mali waxuma Mauritanie daga boobu ñoom dañuy dem coupe du monde sax waaw seen njiit bi moo nekkan foofu fungi fungi ah da nga war a génn da ngay jot na CEDEAO lii la wax da nga def nii léegi <laughs> maa ngi dégg ak coow <laughs> ñetti mandat ci dëkkam maa ngi koy dégg xëy ma ne ñoom ñu ngi yëngal kat <laughs> danga toog doo toog dinaa toog du ma toog ma toog bu mu neex soo dañu la war a bàyyi nga toog parce que ku nekk li ngay dundala ku nekka li ngay dund la dafa nekkoon mu cuxa ci man cuxa ci waa Gambi xëy dafa neewoon amul sol tubay yuutal ko léegi-léegi boo demee Gambi ñu ngi yuutala tubay yi xëy Gambi amul woon agression because kenn ñemewu ko woon Gambi nekkoon na daga boo xam ne doo fa nekka di def yu la neex waaye léegi ay yambari ñoo bëri foofu ay yambari léegi nag ki nekkoon ci daga boobu ni nekka ni

محمد رسول الله رسول الله محمد رسول الله صلى الله على محمد رسول الله Mouhamed Abdallah Thiam nee na soppeem ba Seydina Mouhamed. Euh, ay cant euh, bu am solo cant bu am solo di cant Serigne Fallou Mbacke euh, docteur foofu nag ca dëkk bi nga xam ne moom mooy jam mbaalo foofu ca Mboro fi nga xam ne nag mooy jëwriñ Abdoulaye Faye samedi le 29 octobre lay am mille 2022 cant Serigne fàllu Mbacke docteur cant yi nag cant yi at bu nekk moo am waaye nag dañ koy yeesalaat ren nag ki nga xam ne moo koy def moom mooy jëwriñ Abdoulaye Faye Euh, foofu nag euh, ca dëkk ba nga xam ne mooy Mboro ca Jambaalo Mboro euh, samedi le 29 octobre 2022 sëñ Fallou Mbacke docteur yal na yàlla gudd fanam may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram fotom ngi noonu di jëmu ju tedd ku baax ku am yërmande koo xam ne wax dëgg yàlla euh, diggante dakaar ak euh, fi nga xam ne nag moom mooy ca Touba ay taalibeem ci bitim réew ci Italie fu nekk ci diaspora bi cofeel bi ñu am ci moom mooy wax dëgg yàlla euh, waxam bëriwul tànkam li muy génn bëriwul waaye nit ku maanu te li sëñ Fall waxoon ci moom mi nga xam ne moo ko tudd moom sëñ Fallu Mbàkke docteur ma ngay faj soxla yi ci zaahir ak ci baatin docteur ci zaahir ak ci baatin di sama sëriñ sama soppe sama docteur yàlla ko yàlla defal jàmm su ma ne sama docteur rek am na fu ma jaar moom sëñ Fallu Mbàkke docteur ku baax ngi nii ku baax a baax ku sedd te baax yal na yàlla gudd fanam boo demee Mboro ak yëmbal gii la mu dëpp ci ay xale yoo xam ne wax dëgg yàlla dañu jëloon yoonu safaan mu dëpp leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqiim wax dëgg yàlla ay taalibim sax lañu am kersam si gi xool ko waaliw kaamin mooy sëñ Fallou Mbacke docteur yàlla na yàlla gudd fanam di nuyu tamit euh, képp koo xam ne yaa ngi seetaan waaye cent 143e édition appel Seydina Limamou Al Mahdi le 21 et le 22 février 2023 ren nak inshallah niñ ko defé at bu nek na ñëpp sol lu kër yi ñu peinture leen mu wéx kër yépp nañ ko peinture mu wéx waaw karo yu wéx ñi amone karo yu bleu nañ ko def ko karo yu wéx kay euh, Moulay Aboubakar Ibrahima Aïdara di Khalif général euh, ñu ngi koy ziar Chérif Bachir Aïdara, porte parole Njaborga ñu koy ziar docteur Ibrahima Aïdara. des représentants le xalif fii ci Dakar ñu koy ziar ñoy invité na xalif mo joxe ndigal di wax ne musulman yi ala ziar de Chérif Sidi Al jalid aidara mu ngi am le 6 novembre bobu ci dëkk bi nga xamne moy Sibi Koroto Sibi Koroto Chérif kunda fofu nak ci région de sedju man xamna naa danaa fa dem ndax xalif bi sama xarit la xalif ci bop moo ma bëgg mom nee man xaritam la dañoo takkoo xarit euh, concert Zikirulaay yi kennal borom Touba le 12 novembre lay am 2022 ca dëkk ba nga xam ne mooy Saari ñetti guy euh, ca euh, Kaolack amin animé par Lamine Kara ak Thierno Gueye samay xarit nañu yàlla defal jàmm may leen fan bu gudd ak wér gu yaram ci ndigal xalif général Cheikh Mouhamadul Mahi ñas ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Hakibu Cheikh Ibrahima Niass di Serigne Dibaye ak ci euh, teewaayu Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé ñu ngi leen di woo ci taxaw ibi juma ji nga xamné inshallah le 27 janvier nañ koy amal inauguration ba euh, guddi gi nag danañ am conférence de bo xamné dañ koy animer ki koy waxtaanee mom moy Cheikh euh, Moussa Soxna waye tamit euh, guddi gàmmu gi dañ ci def li nga xamné mom moy waxtan bu am solo ci teewaayu Cheikh mam El Hadji Mountakha Niass bi nga xamné juma joju nak mom moko moo inaugurer and ci ay kilifam ci ndigal gi bam ko joté mbokk yi ah dëkk bi de Euh, buñ ci waxtaanoon tuuti waaw euh, wengal mbaay nee na am na loo xam ne wax dëgg yàlla bu fekkee Macky Sall da cee jóg moom dana ci kontaan parce que saa yu ñëwee fii yokk rek lay wax waaye Macky wàññi na waa kay nee na Macky wàññi na de nee na am na loo xam ne dafa seeroon Macky wàññi na ko am na loo xam ne tamit Macky nga koy waaj a wàññi nee na nit bu defee lu baax tudd ko bu defee safaan ba tamit dana sa ko ndax ab jullit noonu la war a demee waaye Wengal Mbaye gi lancé beneen message bu sew ci suuf ñu seeti alaaji Wengal Mbaye waa mais xale yi na ngeen def mais yaakaar naa ne yéen a ngi ci jàmm de démb ci guddi dama dem côté Kolda génn fa jaaree Tambacounda jaar Kédougou ndax procès xale yi nga xam ne moom lañ jàppoon ba tëj leen ci manifestation boo xam ne dañ ko doon manifester ndax miin yi nekk ci dëkk ba duñ leen jël ba ñu demee nag ñañ ca bàyyi ñoo ëpp ñañ ca tëj ñoo néew waaye mënoon nañu boole ñëpp bàyyi lañ ñu dem parce que xale yi dañoo génn pour rek ñu jox leen liggéey ndax service yi nga xam ne ñooy gas foofu or bi du duñ leen jël li ci ëpp ay doxandeem nañu jël waaye ñoom am nañu droit yi waaye xëy na nag lañ ca àndul mooy taal oto yi donc ma dem fa négocier waxtaan ak gars yi xam naa naa fa delluwaat fan yi en cours de route la ma sama benn waay woo téléphone na ma makki nee na location yi maanaam location kër yi incha allah rabi dana ko wàññi loolu nag am na problème parce que wàññi bi moom il faut mu nekk organisation boo xam ne bu tar lay doon parce que ki jël simaam ak li nga xam ne moom mooy suufoom tabax ko ak kër ga nan la ko amee ndax kër ga ci poosam lay jëw wala xaalis ba ci xaalisu njaboot la bu dee xaalis boo xam ne day dundal beneen njaboot ñu war koo séddale suñ ko wàññee kenn ku ne waroon am te waroon ko jëf ci dara day wàññeek état li mu war a def mooy bañ a wañaar loxo benn propriétaire ndax ñi moom seen kër bu leen neexee jaayee lu leen neex ñoo ko moom ndax ciment bi dañ koo jënd te waxaale wuñ ko maçon bi dañ koo fay ingénieur ba ka defar architecte ba dañ koo fay. léegi état moo war a tabax ay kër yoo xam ne logement sociaux lay doom war a ñu def lenn ne léegi képp koo xam ne da ngay loué ci kër boo fa loué ba fukki at appartement ba yaa ko moom bu ko état mënul joxe parce que mënoo dëkk ci kër loué fa pendant quinze ans ba njëgu kër ga génn yow locataire bi da nga génn njëgu kër ga te yow benn locataire génn nga njëgu kër ga loolu état moo ko mën a organiser uh-huh. kon buñ ko defoon tey kenn ku nekk xam ne boo luwee nit sa kër mu def fukki at ak juróom fay yëpp normal ndox ak courant règle moom moom néeg ba war a moom appartement ba kon solution am na. bi ceeb day wàññeeku de waaw démb wax nañ ma ko celo ceeb bi dina wàññeeku saaku ceeb bi dina wàññeeku waaye ceeb bi nga xam ne mooy importe bi ci boppam mooy wàññeeku. mais ñun suñu ceeb bi njëg bi mu nekkoon jot ko wàññi parce que kilo ceebu waalo bi cent francs nga am ko 350 boo demee waalo kon jënd bi gën a yomb te nga koy bay mooy sa intérêt consommer local bi si boppam mooy tax Sénégal mun a jëm kanam wax naa leen ko ba tàyyi bu ñu bàyyi bàyyiwul restaurant ciki ciki yi nga xam ne da ngay ñëw toog ñu jox la ab pizza war a jox la ab ab dog boo xam ne njëgu cere la ak ñeex boo ko weccee ko yooyu yaay gën a nekk en santé ki nga xam ne dafa dem jënd ñamu tubaab bi. kon nag nañu delloowaat suñu bopp ci consommé local waaw. jawwali Sénégal dama leen doon tàggu nag tey parce que dama fas yéene voyage yi waa damay voyage xam naa tey ngeen ne mujjee gis Wengal dafa am benn mission bu may doxi ndax dafa am lu ma dégg ñu ne day yokk te loolu du ma fi fekk da billaay damay damay doxumaak sama njaboot. damay doon tàggu sénégalais yi di leen xamal ne wengal bu leen ko gisatee na ngeen ko xaar beneen dëkk sa waay wàññi na ñaar waaye am na benn boo xam ne mu ngi ñëw dañ ko war a yokk bit ku fi toog yokk boobu bu la fi fekkee billaahi boo amee jàmm ma xam ne yow doo nit. Pa Wengal ne. Wengal ah. ne. Wengal ah. ne. Venga tú. mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen ba tey di leen bëggal di wax nag Serigne Fallou Niang xale bi fi réeroon feeñ na te nekkoon ci dëkk bi nga xam ne moom mooy Cambérène ah, seen waa kër yi njaboot gi yëpp ñu ngi remercier groupe Kouthia Show rawatina Kouthia ci émission bi nga xam ne ci lañ ko jàllale woon moom Fallou Niang mujj naa feeñ ak ah, bakkan ak jàmm nag kon ñu ngi ndokkale kër ga ca lañ leen waxoon rek fii ku fi jaar réer moom faw nga feeñ Euh, ka nga xam ne nag euh, moom mooy euh, aada sëy boobu tamit dañ ko doon annoncé ca Thiès te nga xam ne bi mu réeree mën na at am na ku ne ñoom ñoo bokkoon gaal mais mujjul yéeg ci gaal bi daal borom gaal bi nga xam ne nag ca la yéegoon dinañu jox numéro téléphone pour ñu wax ndax moom mujj na wàcce Espagne ak déet kon yaakaar bi ñu amoon euh, ba tey mu ngi commencé di feeñ ci jàmm jooju équipe nationale beach soccer coach bi di Mamadou Diallo le meilleur équipe bi dem na final ñu leen di ñaanal yàlla may leen fa ndam ñu nag euh, di encouragé moom tamit ki nga xam ne mooy coach bi di Mamadou Diallo yàlla ko yàlla defal jàmm ba ndam boobu nga xam ne am nañ ko ci ci fi nga xamne mom moy bit biir soso bi mu daal jàppale ñi nga xamne moy équipe nationale bu Sénégal Tafa is joyeux anniversaire ki suma xarit la nak di Mustapha Issa Ndiaye Cheikh Yassine Sey baye Soxna Jaara ak Issa ak Issa Euh, longue vie santé et bonheur moom Tafa Issa Ndiaye yal na yàlla gudd fanam borom gérant transfert d'argent ba nekk ci Ouest Foire di ko ñaanal fan bu gudd ak wér yaram mi nga xam ne boo ñëwee ca euh, place am ba rek xet gu neex gi tey na tax ba lu nit ñi bëri bëri bëri da ngay toog ndax organisation bu rafet ak parfum yañ fay jaay ak cuuraaye moom Tafa Issa Ndiaye sama copain yal na ko yàlla defal jàmm joyeux anniversaire Ablaye Samb depuis Ngor euh, Kanel de Ahmed Serara qui te souhaite longue vie, santé, bonheur à Abdoulaye Samb dédicace à Moussa Diop depuis Mali Bamako Terre bu mag bi nekk Mali depuis Touba di Nyanal, ñaanal euh, Djam, euh, dédicace à Sohna May al al al Aminin depuis keur Massar mom soxna May ñu koy ñaanal tamit kendalu jàmm di nuyu tamit dédicace à Serigne Ibrahima Mbacké depuis Touba diko ziar di wax dédicace à Serigne Djili Diène surtout Serigne Issa djenn di nuyu tamit Serigne Mbacké Bousso depuis Touba Oustaz doukouré bi nek ci 2 tv mom tamit suñu soppi di def émission bu tuddu Al khissan ñu koy ñaanal fan bu gudd ak yu gëram Oustaz bi da fay def actualité te waxtaanam dafa neex trop ndax lépp lu mu la wax rek dafa am fu mu koy teunkou talibou cheikh bu yenn ko yàlla dafal jàmm 2 TV, émission Al Ihsan euh, émission bu ma neex la bo xam dama koy sétane ndax lam cey wax du yalla da fay jël actualité daal di koy boole li nga mom moy euh, euh euh li diine wax actualiser ko ba nga xam ne euh, jotaayam rek ak toogaayam ci plateau faw nga déglu ko ndax carence bi ak ni muy waxé nga xam ki kii daal li muy wax da ko maîtriser mom oustaz Doucouré ñu may ko ay tàccu yalla ko yàlla defal jàmm Madame Ndiaye Madame Ndiaye Angélique Dione la grande dame depuis West Foire de

Euh, dañ leen di ñaanal ñu góorgóorlu bu baax a baax a baax ci seen ñu nekk plus de dix ans dañuy def seen anniversaire nag ren mooy seen dix ans yi nga xam ne am nañ ko te dix ans yi El Hadj Abou Bilal nag juróom euh, ñetti fukki at yëpp dama cey ànd ak ñoom ci coloré ndax kii nga xam ne mooy fàllu yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram borom terrasse yi borom pont yi borom balcon yi borom piscine yi borom sable kii borom ouvrage yi daar gare péage ak fontaine ak tunnel ak travaux yëpp da koy def moom suñu xarit bii nga xam ne moom mooy fàllu yàlla yàlla gudda fanam Sénégal étanchéité 10 ans ça se euh, di nuyu tamit euh, euh, Pierre da Silva ba daf ma woo ne ma da nga indi coow mu ne ma parce que danga ne réalisateur boo xam ne santam dee la commencé nee na ñu bëri di ko woo naan ko ana ndombo yi te ndekete ñetti réalisateur la seen sant commencé par D am na keneen ku suñu waa ji lancé na lancé na ndekete sant ba dee commencé sant ba dee la commencé Pierre da Silva tamit dee la kon ñoom ñetti ñi kenn ku nekk yaay xaar ñu leeral la léegi nag pour départager leen si ñoom ñetti ñi am na ci koo xam ne am na ii am na waxuma ci sant ba de tur ba am na i waa kay bu fekkee leerul suba ma gën ko leeral mais daal ndombo yi ndombo yi moom ku ci bëgg lu leer moom dama ne réalisateur bi ko jënd sant bi dee la commencé te tur bi am na i bu Pierre da Silva yow rek santoo fi da Silva santoo fi dee am na ñeneen noppil bu fekkee na yow da nga bëgg ci ndomba yi laaj ma ko directement moo gën waa kay mu ngi noonu te dama ci dama dama sonn ci ndomba yi <laughs> wax dëgg yàlla war nga woote 77 877 31 49 ñu jox la ko Wula Ndiaye suñu xarit bi ancien maire commune de euh, Ngayokhène yal na ko yàlla defal jàmm moom ak frère am Ousmane Ndiaye ak ñoom maam euh, ba maan ba maam euh, Kor Faye ñoom Fatou Diouf ñoom Jojo maire Fatou Diouf ñoom Khady Diouf ñëpp ngi kontaan waaye Wula Ndiaye bi yal ko yàlla defal jàmm Wula Ndiaye yalla ko yalla defal jàmm mën mën toppatoo gan bu gan duggee ci dëkk rek dina la fekk kër ga ñukoy ñaanal yàlla dafa ko jàmm dafa ko fan bu gudd la ren sarax batay fa mu la nekk batay di taliba Cheikh Cheikh yalla ko yalla defal 77 19 37 lu mu set gis ko ko may fan bu Serigne Cheikhouna Mbacké Serigne Cheikhouna saxo Mara fofu ci VIP ci Touba ak Dakar yalla ko yalla may fan bu gudd ak wér gu Serigne Djili Mbacke bu Serigne euh, Cheikh Mbacke porte parole bu waa Massamba Mbacke di doomu mbenn bi ba ku ñu ko Serigne borom xol bu rafet bi technique ba ci son ba ñu daal dem ci ki nga xam ne nag moom ne ah waaw ah ah ah, ah, ah. <laughs> mais mais mais me mais ndombo yi léegi amatul ku sa Pape Samba moom leen day jënd ndombo Pape Samba Thiam leen day jënd ndombo de <laughs> Pape Samba wax amul la lay <laughs> Pape Samba moom ndombo yi moom wax dëgg yàlla yéene wu ko madam moom yow sa doole rek doy na boo dara def yeneen ndombo moom ah déedéet du ma ko nangu déedéet Pape du ma ko may ndombo li mu am ci doole rek doy day karaté pour na bu doy na doy na waaye déedéet càmmeen yi kay soxluñu ay ndombo yaakaar naa ne soxlu ndombo moom moom soxlawul ndombo léegi Coura Macky ak benn booy bu Y'en a marre ñu dem seeti leen bàcc na bàcc sama dugu se orang liom de lu ma dugu se kuramaki ayam bak kuramaki ñëw kuramaki ayam bak ay kuramaki ñëw kuramaki ayam bak macha Ma ngi nuyu ñep di ziar ñep di gërëm nak ki ma solal muy bàyyi Modou kan ma sa tak ma sayer ndak ma nga ca Masaalikul Jinaan yow dangay dem ndax boo demee ba buntu mala Masaalikul Jinaan nga ubba fa boutique mais da ngay dem di nuyu tamit sama benn sister bu tudd Umu Njaay London di sant ñëpp di gërëm ñëpp pare naa ndam merci kon di nuyu képp kamte rek mu ñuy seetaan ginnaaw ni mu duggee ma bàyyi ko mu nuyoo euh, kon man damay soog ah nuyu naa ñëpp ñu ñuy seetaan di kontaan rawatina axlu beti rasulullah Mamadou Maxtaar lay jiite ko bépp kilifa diine kilifa adda képp ku ñuy seetaan Dia di nuyu aussi euh, waa Black Diamond nekk fi ci Ouest Foire Angélique John madame Diaye ak ndeysaan sama cousine ne fa nekk yëpp ñu ngi leen ziar sama bàcc bokk ci yenn maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la waaye man la bàcc Sandiémé mhm. euh, di représentant waa Y'en a marre parce que gars yi dañu nekk ci ay préparation tournée mhm. tey xam nga rek gars yi dañu nekk ci def wàccaay bu am solo mhm. moo tax tey ñu yebal ma man bàcc ma Samba Sandiémé euh, borom xur moo tax ma tay ñëw tey pour teew ci level bi waxtaane li nga xam ne moom mooy waxu accord te bañ ko seddal muy tàng ndax underground dafa xew il faut ñu accord ko ci kaw ñëpp di ko dégg muy tàng te bañ a sedd ma Massamba première question bi kon yow laa koy jagleel gis nañ tey jii rek conférence de presse bi nga xamante ni yéen a ngi koy waajal yéen ak waa société civile waa FRAPP ah, waa M23 Y'en a marre yéen ñëpp ngeen lëkkaloo tey jii rek ni bul ko sax jéem lan moo waral mouvement boobu ak lan ngeen di waajal waaw mais bul ko sax jéem dañ ko teg mu nekk benn label boo xam ne bon c'est juste pour gars yi xam quoi parce que bu ko jéemee tamit da koy yàq parce que duñ ko bàyyi mu jéem ko troisième mandat sa waay du ko jéem bu ko jéemee def mu xam am na lu koy xaar te képp ku ci taxaw di lam wax di wax jëmale ko ci di ko jéem a pousse war nga koy défendre non at koor bi day dal sa kaw parce que man nekkuma ci ay level hard underground man nay tàng ci kaw you know understand no yes bu fekkee nag dafa am ñoo xam ne dañu yaakaar ne ba sa sawaay mu koy jéem a jéem ñi ko ci jéem a ba ak ki koy jéem yëpp danañu jot lu tàng jër rapping town yàgg nga ma wax gëmatuma la dootu fi amati mënuma waxati lu ma gëm dafa yàgg nga may gëmloo li nga gëm te man gëwuma ko ma ci yóbbu ba ma gëma ko xamal li nga xam ma xam li ma xam hardcore bi dafay dal sa kaw Bathie Massamba Kone moo fi représenté rek eh, bul ko sax jéem mouvement bu bees tàkk bam tëj ñu ko def Coura Macky bu may ni da ngaa tiit ba sa daal bi wadd nag ana lan nga koy wax man du ma ma xam may ni Bathie Massamba bi de nga ba la wadd Bathie Massamba ñi am nañ lu muy lan visa yi leen jiiñ dañu war a lijjanti loolu kilifa ka moom rab bi dafa xeewi xam nga lu xew mm. mbala xay toj dëkk bi rab ko ko dégloo ti nday ah xanaa xale yi nga xam te ñoom lan maasal génération xale dañoo aay de ñii ku fi ñëw dañ leen di lifaay limbaay leen ñii mm. yow dee xamoo ñii xale yi xamoo leen am neen lu leen doy seen visa yi ngeen war a dem lijjanti ah. en tout cas li mu euh, mel na ni daal euh, ñu ngi ci yoon ba nga xam te ne rek li fi jële woon président euh, Abdoulaye Wade M23 ku nekk rek mi ngi fàttaliku rek mois de juin bés boobu mu tànge woon tey ji li ñuy waajal tamit mu mel ni du yomb ndax ñi ñu lëkkalool dafa bari. du fi jëlee loolu du fi jëlee président Macky Sall de. non soxna si. Euh, man dafa moom tontuwul. parce que bu tontool dina wax ne loolu dina fi am war du fi am. dinañ ko jéem. loolu day am wax. loolu day am loolu c'est mhm. dépassé xam nga ñu xaar ku ko a moom. moom ku koy jéem a pousse moom ñun loolu ñu xaar. kuy jéem a puus ne loolu dafay am. day am na day am day fay day am. dafay am force. mënu ci dara. beneen question lu ngeen mënal président. beneen question bi ma lay président mu mel ni instant bi nag Kouramaki. Euh, ñu bari ñu ngi koy euh, commencé di wan ginnaaw Mahmoud Saleh. gis nañ rek moo mujjee dem te nekkoon na directeur cabinet bu président Macky Sall lu yàgg. Euh, moom tamit yàgg ak moom ñu ngi doon xaar lu nekk rek pour mu fal ci poste waxee <laughs> moom tey wan ak ginaaw loolu est-ce que nekkul tamit lu leen suuxal lu leen gën a indil problème. mais lu mu ko wàññi ndey bu ñu wanee président Macky Sall ginnaaw lu muy wàññi président Macky Sall ñoom lay wàññi waaye moom wàññiwu ko dara suulker du ko teree feeñ. bàcc ma sàmm président Macky Sall yàlla moo ko fi teg nañ ko nangul. bàcc ma sàmm yaa ngi simmeeku de Mahmoud euh, Saleh damay laaj ndax da koy jéem wala du ko jéem. du ko jéem. ñun suñu concept dañ ne bu ko jéem ak ku ko jéem loo pour mu jëm ko. da koy jéem moom ci boppam ko defati. ñi koy défendre nag te da koo waa léegi ñi koy défendre nag ñi koy défendre nag ñoom ko soxna si man yow laay déglu li waaw man ñi koy ñi koy défendre nag ñi koy défendre maanaam genre kuréel mag yi ak ñi nga xamante ne ñooy défendre président ak di ko di ko sax bëmax pour mu euh, ñëw si troisième mandat bi. waaw loolu laa wax. ne képp koo xam ne yaa ngi koy jéemloo waaji pour mu jéem ko benn ngi ci kii sa yaram du ko fekkee ah. te xam nga dafa am ak yi ak yelleefu doomu aadama maa ngi dégg violence faite aux femmes waaw mais am na des femmes yoo xam ne waaw une ñu ngi koy oh, xeex dañ leen na noot mhm. ci loo xam ne bëgguñu ko mhm. ñu sàkku leen mhm. ñun dañ koy ñaawlu ñun mais am na femme yoo xam ne tey xeex ak ñoom loi bi dalay may sax nga xeex ak ñoom ma may ma jaar ma xeexoo kenn defoo dara لا لا لا لا gërëm bu baax ñi nga xam ñoo doon émission Show di gërëm tamit bu baax une fois encore Wula ancien maire commune euh, bu ak euh, Ousmane Ndiaye ak euh, Baman Kor ak Fatou Diouf Jojo ñoom Khady Diouf ak maire Fatou Diouf ñu ngi maire Maymouna madame Fall man mooy munoo madame Fall ñu ngi koy nuyu foofu nag ca quartier Thierno Ndiaye di ko ñaanal jàmm ko Mouhamed Fall tamit yàlla di ko naan booy Mouhamed Fall daal namm naa la wax dëgg yàlla ma nga ca Touba ca internat ko yàlla defal jàmm di nuyu papam ko ñaanal fan bu ak ak mère may munoo madame Fall yàlla ko yàlla defal jàmm jàmm euh, ca quartier Thierno Ndiaye ca Thiaroy yàlla na yàlla defal jàmm mbokk yi nag fii nañu dagee émission bi dem seeti ki nga xam ne nag moom mooy Omar Réew mu fas yéene jàkkaarloog ki nga xam ne moom mooy euh, benn militant bu euh, bu Mimi Touré ñu fas yéene waxtaan actualité bi nga xam ne am na ndax Mimi Touré weddi na ne musul toog ak Sonko waxtaanul Sonko yoonu boppam la jël ñu xool ndax loolu dëgg la am déet ñu dem seeti débat bi. xarit. ay Omar ay Omar xanaa man yow de yàlla ma yàlla musal. daan. <laughs> Eh, Omar Omar ku la bàyyi yow bi violence faite aux femmes bi et baa de eh, violence faite aux femmes c'est ku dul bi bu fekkee ne eh, yooyu duma ci dugg. waaw ah. parce que yow baax na. damay bañ ci génn porte pédante ma. <laughs> waaw ONIFAM la ñuy woo léegi léegi. di nuyu ñëpp ñi ñuy seetaan rek Omar réew lañuy ñuy ñëw rek. <laughs> Ah, nday nday kon mu ngook ama réew la ñuy dalal rek dañuy def du bàyyi ko kon mu nuyoo daal di présenté wu ama nuyu nañ la eh, gars yi ne ngeen def ñoo ngi nii rek ça va bien ça bien merci eh, jigéen bu ñaaw góor bu rakkaaju sa cuub bu bon bii xaw la ko jóg waaye. sa yére bu froissé. waaw ba tey ndey naka def. maa ngi nii rek sant Sénégal gi yëpp ñëpp ngi lay nuyu. sama invité laay bàyyi ko mu nuyoo daal di présenté wu acca. ndey maa ngi lay nuyu. Mhm. di lu invitation bi am mbégte nag ak contentement nga dalalaat ma fii sa palaatoo mooy nuyu alaxam. gëmëyoo ko di nuyu ki nga xamante ne nag moo ma génne fii. <laughs> muy Baye Modou kan ma sa tag ma sa yendaag nekk foofu ca marché nga ne lan danga ma yeggali. nekk foofu en face Masalikul Jinaan te boo demee fee nga xamante ne tuwaari kàlla mooy ca Cambérène da nga ko fay fekk kooku yaakaar naa sa wàcci waay big up da mi ngoog rek Omar. waaw joo nga ma de. waaw ah, sant bi ma lay jëkk laaj rek mooy ah, li nga xamante ne rek eh, honorable Aminata Touré démentir na ni moom ak président Ousmane Sonko dañoo gisee dañoo toog waxtaan. man daal xaw ma gisee nañu war a gisee wuñu hmm. mais li mun am daal man. maa ngi xam ne Macky Sall ngi gisee góor ñi. góor ñi Sall mu ngi gise gor ñi. mu ngi gisee ñi nga xam ne ñooy xam nga Sénégal léegi fu ñuy waxtaanee gaz foofu la Macky Sall di to fu ay dëkk ponkal yi nekk foofu lay gisal. Macky sook soxlawul gisee ay ay xiis maa ñàpp dégg ndaat saay mm. moom ay borom gaz lay waxal ay borom pétrole. ay borom ngandi di alal yooyu lay wax léegi Sénégal Macky Sall foofu la toogaayam toll waaye eh, eh, eh, diwtiir moom bu bëggee gis mbaxalu Saalum ñoo xam <laughs> loolu la am li may wax loolu nga am looy wax madame Anne Cissé kon ma bàyyi la ana yow yaa fi toogal sax honorable Aminata Touré waaw gise bi amul mu mel ni ay rumeur la kon loolu ay waxi kasaw kasaw la fu gisee amee sos ak li nga xamante ne mooy yàq gi ñu nekkee ci boppam lañu war a bàyyi mi ma gisewul tey mi ma gisewul suba mi ma gisewul gannaaw ëllëg waxkat yi nag dañ leen bàyyi ñu wax le chien aboie la caravane passe ñun loolu lañ fi nekkee. amul sax seen mais lan lan moo tax loolu mu nekk rumeur ba mu tey ñëpp dañ koy waxtaan. est-ce que dañ bëggoon gisee. affaire bi mujjul am mu avorté wala lan. buzz buzz ah? yow loo xam ci ku bëgg buzz. ah buzz la buzz bëgg yéen xanaa bëgg buzz dong lañ ci dugal. luy suñu yoon ci seen gise. seen yoon a ngi ci kay suñu yoon ci seen gise. loolu ngeen yàkkamti gise bi ngeen yàkkamti waaye du am de. yéen yéen yéen seen problème seen problème la dimbali leen. loolu ñun la concerné loolu ñun la concerné. ñu gis ne tamit waa APR mu mel ni seen ponkal yëpp ñu ngi roccee ko di dem benn par benn. waa APR ginnaaw Mimi Touré gis nañ fi euh, Mahmoud Saleh gis nañ euh, Abdoulaye Diouf Sarr maire bi nga xam ne moom la meroon mu mel ni ponkal yaa ngi wàññeeku rek waaw ku maire bokkoo nañ dem ku xool ndax est ce que du leen néewal doole ku maire bokkoo est ce que du wàññi seen doole tamit mënuñu wàññi suñu doole président Macky Sall ku ko bàyyi am na ñeneen ñu ko jàpp fukk bàyyi ñaar fukk jàpp benn bàyyi ñaar jàpp loolu ku ci mën dara kenn mënu ci dara gis nga ñii mhm. xam nga la moo leen nakkar yi lu dagg seen kol yi mooy assemblée ren paas nañ leen di loolu leen métti ndey. loolu moo leen métti loolu moo leen nakkari. Eh. te du li ngeen tolloo yéen tamit moo tax ngeen joxe paas Omar. de ndey gis nga nii paas nañ mérité. Ah, parce que da leen jox oto yi bu dee góor nii la. waaw nekk fii di Tamba mbaalu. yóbbaale <laughs> def ko taxi kalandoo. la la eh, la la kay naa ne kat kat kalandoo nañ koy def. Dakar dañuy yëpp ay client dem Mbour man xam naa ni <laughs> dañoo maire yoo xam ne maire remplaçant ay citoyen waaw ñii tekki wuñu dara ndey ndey gis nga yow booy invité invité ñu am kalaas ndey ñoo xam ne dañuy nekk ndey ba xam nga ne dinaa ko dagg ndey daggal question jarul sa nga ma koy posé ndax damaa yaakaar ne lii di xeeñ neexut mm. lu naqaree xeeñ ndax lan ñi génn ñeneen ak ñeneen dinañ génn ñëppay rocceeku génn ndax li xeeñ neexut. boo yéen mu mel ni ñëppay génn loolu mu mel ne neex la yéen de ah. ah dama cee kontaan daa rek ci kontaan mbégte laa ci am bu waaw ni ma kontaanee ëpp na de booy invité tamit da ngay xool ni ngay invité. parce que am na ñoo non kii indi pas yi xamul grande dame la grande question grande dame. da nga indi grande intellectuelle. moi je suis intellectuelle de haut niveau. niveau Mimi accompagne avec des intellectuels nous on est des intellectuels. Mimi accompagne avec des intellectuels. on est fait les bas. on nous a éduqués nous on fait tout ce que. yow li nga sol ba ci kaw da nga ko wéyaat. yaa ngi gërëm ki nga. kan moo le ko fi ki taaj masa yeer ndaak daa xam ne damaa jongama bi mama Thiam moo fi jaar madame Fall léegi te zone de captage moo ma génne fii ci brochure bi véeri nag véeri yaa fi jaar véeri sama mag moo fi jaar ñu ko ah, Ibrahima Ndiaye depuis daal woon daal yi moom maa fi génn sama bopp tubaarikàlla ak jaare yii ma dama kaay ndey <laughs> fi mu génnee boppam ndey fi mu génnee boppam daal chinois yi jaar mi daal chinois wala <laughs> ma koo kase ci kaw ba suuf daal yi ma moi je suis façon je suis habillée comme je veux je suis habillée comme un intellectuel tu n'as pas vu quelque chose qui est défaut sur moi. Ah Il n'y y' a a rien qui est défaut tout impec tout est impec. ki nga xamante ne kii baa ko soog kàmme. ah xam nga ko kii moo fi ñëw séeréer. yëpp nag nee na nuyu na. ñoom Soda Diaw Louga doo kii waaw waaw sa mbokku séeréer. kii de keneen comme doon na doon waxateeg man de li nga nekk sama kàl sax moo tax mu nangu wax ak sim naa nun de alayame. Mm. kontaan naa nun Omar Faye o wasangaan foten xanum xawen boobu xon Ndeye. Hmm. waa Sam Foten. yéen xanaa ay. Ndeye ci rek. ay ci ama ñu xor la Ndeye. ay gari mene Ndeye Ndeye gari mene. gari ah Ndeye yow tamit dégg dégg séeréer xanaa. dégg dégg mu yóbbu la nii ngay téem. daf ma arrière de doole. xala yoo ma. ngeen. xala yoo. xala yoo la. xala yoo. mooy la de. olo ya nga mene kam xaw a mene boo xool. au di fraction de seconde um feeno bagage mene. Mm-hmm. lay man dama la xam euh, mi aussi kam kam ando kam nga lu tama kam la lay yow man su ma la déggee xam nga yow suma dëkkandoo nga woon su ma la déggee du ma taal suma réveil du tax du tax qu'est-ce qui te fait rêver dis-moi déy déy kaay toog <laughs> nga déy kii kii ndey suma dëkk ndoo la maa ko soog kàmme eh. kii du jaara la kay jaar njaay mel borom poroxaan ndey kii jaara gis nga borom ka woon a ngi de bu xëyee lekk maafe eh, moom lay ndékkee séeréer la de day lekk maafe teg ci ndey déglu ci cere teg ci eh. mbaxal soos def meew ak soow waaye ndey <laughs> kenn du am jàmm <laughs> jàmm ak salaam dara ñu maafe ku ko lekk ku ne xam nga ne tubaarikàlla da ngay yendoo digéré oyof na ba pare te day légère. yow lii ma neeg rek mooy man duma kaar ma réveil sonné. yaa may yee man nan laa lay yee te dëkkuma ak yow. <laughs> nu ma lay yee te dëkkuma ak yow rek laa la bëgg a laaj. nan laa lay yee. xanaa dafa bëri lii ma yee di wax. a ah, waaw kon lan la li ma yee da nga koy dégg di wax. kon nga wax mu dégg. waxal nga yee daal nekkul fii. fu mu ne. <laughs> yow kam nga ko. yow nu ma ko xamee dama dëkk yow ba di ko xam ba soixante